kenn nga te yaa nuy moom kenn nga te yaa nuy moom kenn nga kenn nga kenn nga te yaa nuy moom Sëriñ Saliou Mam Sall sëriñ saaliwa kenn nga te moom kenn nga te yaa moom kenn nga kenn nga moom sëriñ borom jamono baax kenn nga te yaanuy moom ñun kenn nga te yaanuy moom kenn nga kenn nga Baay Sal kenn nga te yaanuy moom Sëriñ Saliou Maam Sal asalaamaaleykum wa rahmatullah wa mbokk julli di mbokk taalibe yi jot nañu ndigal ci Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak sëriñ seex Mbakke mii nga xam ni tey moo wuutu baayam ba sëriñ saaliw ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér bakk boobu ngeen dégg nag mu jib muy kenn nga yaa moom ah bakk boobu nag saa su jibee xel yëpp dem ci kan ah ci sëriñ Ousseynou Kane nag borom xalima gi ndigal nag bàyyi ko ci sëriñ Seex ndigal loolu sëriñ Ousseynou nag fa seeni ànd ak taalibe yëpp jëm xel koom ca daara junnaan daaru sakoor ngir lan ngóob moo xam ni sëriñ Seex jox na ko ndigal jàmbaaram ji nga xam ni ren daal sëriñ Ousseynou Kane borom xalima gi fas naa ànd ak képp koo xam ni ah ab taalibe nga wala nga bëgg Serigne Touba wala nga yaakaar Cheikh du Bamba ah ñu war a départ nag le 23 bii nag jëm xel koom xëy di 24 ca ngoogu daaru Sakkoor ba kon nag nu ko ñëpp bàyyi xel li ñuy def mooy jël kaddu gi ndox jox ko jàmbaar ji mu woote nag ci turu Serigne Cheikh moom Serigne Saliou nag nu ñuy waajee ak nu ñuy demee. ca ngóobu xel kom ba jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ Saliou sëriñ Saliou jërëjëfati sëriñ wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum bi nu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal Cheikh Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñaanal sunu jëwriñ ju tedd ji Serigne Cheikh moom Serigne saalifu Mbacke yàlla may ko fanu yoonante yàlla nooxu wa waaye nag te bàyyee ko barkeb maamam ba kon ni ngeen gisee jataay bi rek jot na ndigal ci ku tedd ki Serigne Cheikh Saliou Mbacke euh, xam naa jataay bi sax dana leen jaaxal ndax ñu ngi ko baaxoo def ci lagan ji waaye nag comme murit moom ndigal moo koy dundal murit boo gis muy dox boo génnee ci moom ndigal dafay mel ni ka dafay mel ni bun musannada li alxuraan di wax ka annakum xusubun musannada mooy bant bu nu wéer boo demee ci téyeer yi dañuy def benn netaalu jëmm solal ko yére wéer ko noonu rek boo ko xoolee mel nit fekk na du dara <laughs> loolu mooy xusubun musannada képp ku ndigal génn ci yow da ngay mel ni rek nit ku tekkiwul dara kon nag ndigal mooy dundal am murit sëriñ bi yeesalaat ci sunu jëmm yi koom ren mu jagleel nu daara ju ñuy wax daaru sakoor daaru sakoor ca xel koom booy dem xel xelkoom daara ji ngay njëkk a jot muy daar muy muy daaru xudóos moom moo ci topp ñu fas yéene faa dem incha allahu rabbi le 23 octobre euh, tombeek ajjuma incha allahu rabbi ci ngoon lañ fas yéene départ fii départ bi benn la secteur parcelle bi yëpp benn départ fi am muy fii ci buntu kër bi di asalem Grand Médine kon nag ni ñu ko sëñ bi sante ñu ngi ciy woo taalibe yëpp di ci woo xarit yëpp di ci woo soppe yëpp te xam ne xel kom moom njariñal bépp taalibe la képp ku fay dem itam sa tawféex képp la dem gi ñu dem xel koom nag yàqul dara ci ndigal liñ jot ca lagan bu buñ jugee xel koom ba génn ci guddi gi bi sallallahu alayhi wa dañuy waaj lagan ndax ndigalal lagan la kat dara tuxuu ca ah, ba léegi ma nga fam nekkoon ndigal lii da cee yokku rek di gën a suuxat sun ruuy di nu gën a bëggloo Sëriñ Tuubaa kon nag nañu waaj ñun ñëpp yow mii ne ci sa di wax ne Sëriñ Saali wala Sëriñ Saali wala dimbali ñaara la topp wala ñetta topp ta nekk ndakaaru ndigal lu mag li mooy xel xelkom képp ku tudd Sëriñ Saali te nekk ndakaaru goreel nga dem xelkom goreel nga dem xelkom <laughs> ah, te xam ni eh, Sëriñ Saali yu jugu fi ku mooy Sëriñ Cheikh te mat na ko sëkk waaw ah, képp kuy tudd sëriñ bi te nekk ndakaaru ak koo mën a doon cheikh yi bari nan lool kon nag <laughs> comme cheikh yi dañoo bari nag war naa feeñ ci liggéeyub sëriñ Saliou bële ca Xelkom su jotee yow mi ne ci sab ruq tànt sab tànt eh, donte ñett la gëm wala ñeent ngay tuddoo sëriñ Saliou tawféex ji mooy nga ànd ak ñi la yaakaar dem Xelkom soo ko defut it bu amee xel xam ni kat nekkoo ci dara kon nag nañ bàyyi xel Xelkom incha allahu rabbi fas yéene faa dem nga ngërëmal sëriñ bi rek ah, eh, kon bokk Xelkom 2020 incha allahu rabbi le 23 octobre vendredi à partir de 17h destination Darou Sakour incha allahu rabbi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekkee ko te tal ko ci barkeb Serigne Saliou Mbacke Khadim Rasoul ñu ngi ñaanal Serigne seex nag mu yàgg fi lool waaw ndax liggéey bi mu gàddu nii dis na lool na fi yàgg te wér waaw dañ koy ñaanal mu yàgg fi ñu yàgg fi Serigne bi bu fi yàggee te yàgguñu fi. yàgg gi du am valeur bu nu fi yàggee sëriñ bi yàggu fi yàgg gi du am valeur kon na fi sëriñ bi yàgg doo ngay yàgg fi tawfeex doo ko am waaw ah, kon boog ilaa xel koom départ bi fii la asalam Grand Médine incha allahu rabbi ajjuma ci ngoon bépp oto bu nu war a dugg jàppandi na lépp jàpp jàppandi na teguñ kenn dara pour muy leer teguñu kenn dara lu dul dem sëñ bi ñun dañoo dimbali <laughs> xel koom ñoo war na dem luye suñuy oto def ci suñu essence koo xam ne moo lay jox oto jox la essence jox la la ngay dundee ah nga nga nga pare mu jël la nga doon la nga la nga doon góob jox ko néew doole yi yow est am nga dara sax loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu loolu kii maan la kon nag nañu wàcc xel koom ji incha allahu rabi dem jëfe ji ndigalal Serigne Cheikh Salihou Mbacke xaadimu rasul yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu fekke ko tetal ko incha allahu rabi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wala kenn nga moom yow kenn nga ta yaanuy moom kenn nga bay sal kenn nga ta yaanuy moom Sëriñ Saliou moom sal sunu ruy lee benn la te yaa koy moom yow kenn nga te yaa nuy moom kenn nga kenn nga Baye Sall kenn nga te yaa nuy moom